salli ya rabbana wa zalim alama wa huwa lil xalqi rahmatu wa sifaa كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء متى ولات أزماء ñëw ziyaar si xalif bi ci euh, weer wu tedd bi ak gàmmu gu tedd gi nga xam ne ñu ngi koy waajal euh, ñu gis taxawaay bi nga xam ne moom am na ko ci réew mi mais surtout ouverture d'esprit bi nga xamee ne mu ngi ci xalif bi parce que saa su ne suñuy waxtaan dañuy dugg ci géopolitique dugg ci ay mbir yu yaatu yoo xam ne Euh, du yenn saay nga koy mën a waxtaan ak kilifa waaye moom ouverture d'esprit boobu niveau intellectuel boobu nga xam ne am na ko euh, moo tax saa su ne damay bëgg di ko jege di déglu lim may wax parce que lu mu la wax rek téere la euh, xel mu sell moomu mu yor yàlla na ko yàlla gën a dooleel kattanal ko moom ba lépp li mu yóotu ci liggéeyal ko fii dëkk bu tedd bi suñu borom sottal ko kon ñëw bii ma ñëw ñëwu doom la ñëwu taalibe la gis nañu kër gi ni ñu ñu jàppee gis nga bi ñu yegsee sax nangu ñu ñu ñëw toog dañ ne dem leen añi soxna si ñu koy ziyaar di ko sant moom it ci téye boobu nga xam ne téye nañu ko te xam nañ ne lu mu ñu téye rek ni nga ñu téye moo ko raw te boo ko tegutoon ci yoon woowu xëy na du ko def kon ñu ngi lay delloo ziyaar di ñaan ci bés bu tedd bi ñu jëm yal na la suñu borom kattanal yal na la suñu borom ubbil xéewal yal na suñu borom dooleel taalibe yi nga xam ne yow lañu yaakaar ñun ñi nga xam ne it yaakaaruñu kenn yu dul yéen ñi fi taxawal mag ñu baax ñi naa ngeen aar ñu ngeen yiir ñu ba lépp lu doon seeni soxla taalibe yi mun cee taxaw parce que xam nañ ne amu leen lenn intérêt personnel lu ngeen di def rek pour communauté bi la lu ngeen di def rek pour réew mi la sëñ bi ñas ñuy sàkku ci yow it nga ñaanal réew mi ñaanal réew mi dal ñaanal réew mi jàmm ñaanal réew mi réussite parce que daluk réew mi réussiteu réew mi mooy ñun suñu réussite ñu ngi lay ziyaar bu baax a baax a baax a baax yii daal laa àndoon ak euh, ñi ma àndal euh, madame de ministre Ndeye Khady Diop euh, ñoom Pape Sow ñoom Mamadou Guèye Bachir Seck ñu bokk ci biir la grande coalition gëm sa bopp man ak sama jëmm ju xeebu ji ma ne leen fa ma jëm de suma kër la kon su ma yegsee fii jaadu na ma ñëw weccanteeg yow yi kàddu dama ñëw sax fekk presse bi eh, waaye jàppoon naa ne eh, bu ñëw seet si sëriñam eh, jaru tàllal micro <laughs> jërëjëf salli ya rabbana wa zalim alama wa huwa lil xalqi rahmatu wa sifaa كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء متى ولات أزماء